nouveau régime PASTEF ou Diomaye président euh, le cap a été très tôt donné xam nga xam dafa am ay sujets c'est des sujets de grande convergence yoo xamante ne euh, dafay créer consensus le plus large possible qui acteurs socio politiques yi nga xamante ne ñoo seq géew bi quand on parle de reddition des comptes besoin là, réalité là, normalité là. Euh, moy suñ waxé démocratie fiscale que le fisc s'applique indifféremment à tous les citoyens à toutes les entreprises et entités nangam nangam ça accroche tout le monde ak qui ni mel yenen yenen on pense en citer pêle-mêle maintenant euh, xam nga gaay suñ togué songu chantier yoy mën nga ne dañu nek ci liguey. mais fay am quelquefois de petits signaux ou de petits signes yuy wane ni xëy na ñii du lii moo leen intéressé dëgg-dëgg mais euh, dafa am ñu ñuy topp euh, biñ ñëwee songu la presse. bloquer les conventions arrêter euh, en tout cas defal leen euh, bloquer seen compte yi pour la plupart. waaw ci wàllu impôt ci wàllu boobu. ñu ne déetawaay nga gis nous commencé à initier yoo xamante même s'ils ne sont pas de la presse journalistes techniciens mais nous utiliser les médias pour dire wax seen ay opinion yooyu ñu commencé commencer song commencé leen xawxatal dafa am luy dessiné nous ma wax ni loolu le dëgg-dëgg mhm. ci l'a alerté mané j'ai comme l'impression qu'il y a une tentative de baïonner les libertés d'expression surtout mhm. alors ñu dem ci lolu dem ci lolu ba yegg si aujourd'hui ñu ne on nañ Kader parce que dafa wax ci gal bi terre fi nangam nangam et man wax dëgg yalla dégluwuma toute la vidéo mais tombé na sur une vidéo où lui parlait mais bi mi wax j'ai comme l'impression que dafa wax nit yi dee ne nañ ko gëstu parce que parce que fofu non lim doon junj moy est-ce que ñoñu ay ci luñ seen xaalis lek xaalis bi xamni ni amuñ moyen pour yóbbu leen ñu bàyyi ñu périr en haute mer wala yóbbu leen ba ci biir bàyyi fofu ñu périr genre affaire yoy la doon wax. d'un autre côté mu ne amna na ñu ko wax ni amna policier yu taseeg gal wala bok ay agent de sécurité yu gal euh war len japp ñooñu neexal len et loolu noonu ñëwaat na pour dire que d'abord président mom mo ne bi togué rek dans son deuxième discours mu ne dinañ fexé légaliser. Euh, li ñuy tuddee lanceur d'alerte war ko conceptualiser utal ko ay ay ay ay arcade yu koy yu koy dëgëral. ñu gis événement am mu demaat Mbour wax yoole waxaat na ko feneen lu mel noonu. mais yow suñu ne laa yoole nit ne la diw tase naag ay nit tase nañoo gaal takk der ñu ne leen nangam ak nangam. est-ce que jar na. nga nga oo waaw waaw noonu la ko waxee. est-ce que jar na kook nga oo ko kon kan mooy yooleeti kan mooy yooleeti. protéger kii joxe vérifier l'information si elle existe si elle n'existe pas nga nga xam mais de notre côté. est ce y y a moo ñëw ci télévision ne man amna, amna ben audio incriminer la police ci ont fait de corruption. non je ne sais pas. cest est ce que ki wax loolu da nga ko naan jox ma audio mais est ce que jar na déferment wala yooyu non mais au même moment presque dans le même temps Guy Marius Sagna dafa wax def poste y policiers policier taximan bi arrêté taximan taximan bi dem ñew ne ma policier bi daf ma laaj xaalis dañ ko féliciter le ministre a sorti un communiqué pour le féliciter pour la féliciter et j'avais déjà dit que lolu risque le parce que day nek porte à des dérives parce que xamoon naa ni keneen su ko ñu téyé ko l'exemple de ce qui s'était passé à Tchonk les filles accompagnées de quelqu'un d'un chauffeur ou xawma señ une chamign bu doon dawal mhm. wajid len laaj xaalis filmer bi film bi génné ñom lañ toppuñ sax policier bi donc yooyu am na ma ne donc Guy Marius Sagna wax na loolu def na poste boobu def na poste pour diir que police ak gendarmerie dañ leen di ger am nañu responsabilité ci lii xew ci géej gi wax ne ñeneen administratif yi am nañ ci responsabilité père de famille yi am nañ ci responsabilité nangam ak nangam ak nangam un boo xamante ne mën nañu wax j'accuse def na ko pourquoi owuñ ko moom pour ces post ñu oo Kader pour parce que nee na na wala am na audio wala genre yooyu donc loolu waxuma nag neex Kader li mu def baax na wala li mu def baaxul. loolu justice mën na ko def mais est-ce que jar na convoquer déférer le présenter presque comme un ennemi de la République. alors donc yooyu yëpp dafa nekkoon ay signaux yoo xamante ne quand on accuse la police de corruption dans ce contexte là où on, on, on compte des morts dans les dans, dans, dans la mer laaju ñu ñu gëstu loolu non waaw gëstu waxuma waxuma gëstu et du accusé le moy accusé est-ce que dàmboj ak Clédor Sen, Clédor Sen, hein dem nañ fi yor seen téléphone di filmer liñ wax est-ce que deug la dañ accusé ay nit ñi ñoo lek xaalis bi un mois tabax nañ def nañ nangam ak nangam dañ leen tëj da nga gis ku moins deux mois après la dàmboj am pré promotion donc est-ce que justice bi ñu bëgg indil c'est une justice à deux vitesses non il faut alerter sur ça et loolu nous, dafa nekk un signal fort on est peut-être les intentions véritables de Nyinga nga xamante Nyom ñoom ñoo bëgg yor mbir mi léegi ñu Suzanne Camara n'est qu'au da premier ministre a menti l'offense au premier ministre une création purement et simplement la femme qui arsenal juridique bi en ah, si wala yéen ñaar ñii dafa am offense au premier ministre C'est délit d'offense le délit au président aussi non ma man ma il parlait au premier. C'est en fonction des prérogatives que le président donne au ministre. waaw non c'est ce qu'ils ont voulu théoriser mais en réalité. waaw waaw donc donc loolu tamit dafa nekkoon beneen signal. mais loolu yëpp tamit dafa am leneen lu koy lu koy lu koy wane mooy il y a également un agenda politique. boo xamante ne da ngay gis ni le président de PASTEF pour faire comme Bougane tout à l'heure <laughs> parce que le président de PASSEF la donc le président de de faire décliner un agenda politique bon xamante on euh, déclinaison bi zombie, ngi dem step by step moi bi suis dit avec les agents informer leen que craignez rien motion de censure il n'y en aura pas parce que député yi cotale ko tal député yi moi ko taal mooy dañuy dissoudre assemblée dañuy dissoudre assemblée moi dans les 60 jours à 90 jours on va trouver une date pour des élections et loolu nous nous, moi désigner ses adversaires politiques genre yoyu. donc lolu Moy suma ma donne